suñu borom li ñu ciy gëmee ci boo toppee yoonu al imaamul ashari dafa am ñaar fukki melo yoo xam ne day meloy mat di sax ci wàllu yàlla nga war leen a xàmmee te gëm ne yàlla melowoon na leen ba ci njëkk mooy ñu gëm ne yàlla lu am la du rek lu ñuy wax ci amut kon amul yàlla moom nga war a njëkk a gëm jàpp ne am na te kenn amalu ko moom ci boppam sax amalul boppam mu teg ca nag jàpp ne it daliwul fenn fenn muy alxidam mooy ñaareel bi ñetteelu melo yi mooy nga gëm ne yàlla amul fu muy yem du jeex mukk mukk mukk ñeenteel mooy nga gëm ne yàlla moo sàkk lépp waaye dafa doy li ci boppam ba aajowul kenn mbaa lenn ci li mu sàkk man nga ni sax aajowul kenn mbaa lenn mbaa fenn ca la mu sàkk lépp aajowu jëm si ci moom te moom nag aajowul jëm ci kenn loolu mooy melaw juróomeel mooy nga gëm ne yàlla moo sàkk lépp waaye nuróowu ceeg lenn lenn lenn lenn nuróowu ta mbindeef ci dara dara dara dara kooku mooy melaw juróomeel yi juróom-benneel nag mooy nga gëm ne yàlla dafa wéet ci jëmmam wéet ci melowam wéet ci ay jëfam maanaam jëmmam ji moom rek ko am melow ni moom rek moo ko mel jëf itam moom rek mooy jëf lépp lu bokkut yàlla rek jëfi yàlla dangay gëm ne yàlla lépp la man amul lum tële loolu mooy qudratu iraadatu mooy yàlla coobaram rek lay jëfe amut ku koy forcé mbaa lu mën am te du coobaram nit ki nit ki lu rëcc rek am mbaa lu tomb rek am déedéet loo gis rek coobareem la ñuy gëm ne yàlla lépp la xam amul lu umpale te leen lu ne na mu doone la ko xamee ñuy gëm ne yàlla am na dund ga nga xam ne moo yell ca moom mu dund goo xam ne dee du ca topp dañuy gëm ne yàlla amee na dégg ba yell ca moom amee gis ba yell ca moom amee wax ba yell ca moom juróom yaar yi muy qudratu iraadatu xilmu xayaatu samhu basaru kalaamu juróom ñaar yi bu ci nekk day jur benn ndax ndax ku ci nekk aw melo nga woo xam ne faaw ci jëmm rek ngay nekk su ko defee nag boo nekkee jëmm ja faaw ñu ne jëmm ja loola la te du mën a ñàkk ndax qudratu kàttan ku nekk ci moom ñu ne xaadir la aji àttan la maanaam jëmm ju amee kàttan la iraadatu coobare ku nekk ci moom ñu wooye ko muriid xilmun xam-xam ku nekk ci moom ñu wooye ko aalim xayaatun dund ku ko melowoo ñu wooye ko xayyum samhun dégg ku nekk ci moom kon sami la basar gis ku nekk ci moom basir la kalaam amee ay wax ku nekk ci moom ñu ne mutakallim la kon kon juróom-yaari melo yi ku ci nekk boo ko tuddee tudd jëmm ja ko melowoo na nga koy wooyee kon day nekk yaari juróom-ñaar bu ko defee nag muy fukk ak ñeent nga boole ci juróom-benn yi nga xam ne moom nga njëkk a tudd muy alwujoodu alxidamu albaqaawu alxinaa des na ko tuddi alxiyaamu bi nafs ak muxaalafatul xalq ak ak alwaxdaaniyatu yii boo ko boolee mooy ñaar fukki melo yu mat yi nga xam ne mënta ñàkk ci wàllu suñu boroom suñu boroom melowoo leen seeni safaan nag mooy jomb ci yàlla ñaar fukki melo yi nga weesu muy melo yi mat te sax ci wàllu yàlla seeni safaan nag day jomb ci yàlla alxadamu ñàkk ñàkk mooy bañ a nekk lu am ñu koy tudd rek noonu te amut loolu jomb na mooy safaanub alwujoodu alxuduus ak sosu sosu mooy am fu mu dale am fu mu doore da nga ne woon yàlla dalewul fenn kon nag am fu mu dale jomb na ci moom ak bañ a am ak sosu dale fenn melow mbindeef la waaye yàlla moom yooyu yaar jomb na ci moom yàlla du jeex mukk mukk ndax da nga ne woon dafay des ba faawu faawu kon nag jeex jomb na ci moom alfanaa mooy safaanu albaqaawu te nga ne woon yàlla dafa doylu ci boppam sëkk aajowoo kenn mbaa lenn mbaa fenn kon nag mu aajowoo jëm ci kenn mbaa lenn mbaa fenn jomb na ci moom te nga ne woon yàlla moo sàkk lépp waaye muróowu ceeg lenn kon nag kon nag mu yemoo ceeg lenn mbaa mu ci muróog lenn sax jomb na yàlla nga ne woon yàlla daa wéet ci melo ak jëm ak jëf kon nag yàlla limu dinaa ñaari yàlla mbaa ay meloom limu mbaa am kenn kuy jëf ku bokkut ak moom loolu jomb na da nga ne woon yàlla lépp la man tëlewul dara dara kon nag lottu jomb na ci moom da nga ne woon yàlla day jëfe ci coobare kenn du ko forcé lu ko neexul rek du am kon nag karaxatu ñu forcé ko mbaa mbaa boog am loo xam ne am nga mu am du coobareem jomb na wa jahlun akub réer mooy safaanub xilmun xam nga nga waxoon da ngay woon yàlla xam na lépp kon na yàlla umpale leen jomb na ci moom wa mamaatun ak dee ba nga ne yàlla amee na dund goo xam ne mooy yàlla ca moom kon dee jomb na ci yàlla ba nga ne yàlla amee na ab gis ba yàlla ca moom amee na dégg ba yàlla ca moom amee na wax ga yàlla ca moom kon nag safaan yooyu muy gumba ak tëx ak lu jomb na ci moom sumaatu noppi da ko daaneel rek way wi wane ne sumaat noppi jomb na ci yàlla ndax noppi ne pat mbirum mbindeef la waw melo kenn du ko jëmale ci yàlla waaye nag sumaat ji booy wàññi moom doo ko wàññiwaale ci ñaar fukki melo yi ba tey juróom ñaari melo yi muy alhajiru alkarahatu aljahlu almawtu alsamamu albakamu alxama juróom ñaari melo yooyu ku mu nekk ci moom rek ba tey nga wooye ko loola xajisum ji nga jëkk wax ku mu nekk ci moom ñu wooye ko xaajis karahatun ku mu nekk ci moom ñu wooye ko kaari jahlun ku mu nekk ci moom ñu wooye ko jaahil mawtun dee ku mu dal mbaa dana ko dali ñu tudde ko mayit samam tëx ku mu nekk ci moom ñu wooye ko asammu bakkam lu ku mu nekk ci moom ñu wooye ko abbu kamu xaman silmaxa muy ngumba jëmm ji ko melawoo ñu tudde ko ama xam ne kon juróom-ñaari melo yi ak bu ci ne na ngay tudde ka ko melawoo di daal nekk fukk ak ñeent boo ko booleeg juróom benn yi ko jiitu muy alxadamu ak alxudoosu ak alfana ak al iftiqaar ak mumaatalatul xalq ak at tahaddudu limu tam tudde ko nafyul waxdati li bokk boolee mooy ñaar fukki melo yi nga xam ne melay manqué la safaanoog melay mat ya nga njëkkan wax kon ñu di ay melay manqué yoo xam ne xel da koy jombal ci sunu boroom meloy mat yi mooy melo yi nga xam ne xel mu sell mu ne day dogo ci ne yàlla mënta ñàkk melowoo melo yi melo yi manqué yi nag xel mu sell mi day dogu ne melo yi moom dara du ci jege yàlla jomb na ci yàlla faw faw ne li nga xam ne mën naa am ci wàllu yàlla mën na cee ñàkk mooy rek lépp loo xam ne jombut lu mën a am la ñu bàyyi ko ci kàttanam ak coobareem su fekkee ne kàttanam ak coobareem aju na ci amal mu amal su kàttanam ak coobareem ajoo ci bañ a amal mu bañ a amal waaye yàlla te bañ a wax ne nangam daa war ci yàlla mu def ko mbaa nangam suñu koo def déedéet moom daal kenn du waral ci moom dara lu ko soob rek def lu ko soobul bàyyi loolu mooy li nga xam ne mooy jaayis ci wàllu yàlla nee na tegtal bi ñu xamee ci xel ne yàlla am na mooy rek mindee fi am te sosu te yàlla leen sos mindeef moom dafa sosu dana ko layal bu wër nga gis ka leen sos nag mooy yàlla ci la ñu xamee ne yàlla am na day njëkk a layal nag ne mindeef yi sosuñu seen bopp maanaam naa njëkk a layal nag ne mindeef yi dañoo sosu ba àggal door a wane ne sosuñu seen bopp lëng ci wolof mooy wat wat maanaam ëpp doole niki ñaari booli balaas yi bu benn ba gënee diis jëm suuf benn ba jëm kaw ba jëm suuf nga xam ne moo ëpp doole loolu la ñu tuddee lëng dane buñ nee mbindeef yi ñoo sos seen bopp day mel ne kon am na yaar yoo xam ne dañoo yemewoon képp gannaaw ba kenn ka wëlbatiku ëpp doole moroom ma ci lu dul benn sabab xam nañu sax yaaru yemoonte képp gannaaw ba kenn ka ëpp doole moroom ma waaye dafa am jeneen doole ci ci wàll si mooy daa am sabab soo xam ne moo tax moo ëpp doole waaye jékki-jékki ëpp doole rek ni ki nga teg ñaari dërëm ci ñaari booli balaas bu ñaari dërëm yemee képp kon ñaari booli balaas yi dañu yemoo képp benn ba du wat sa moroom benn ba jékki-jékki wat moroom ma nag te leneen wàlli si wucca loolu la xel nanguwut bu fekkee da nga ne nag mbindeef moo sos boppam kon loolu lay nuru ndax dañuy jàpp ne mbindeef jaayis rekk la maanaam lu mën a am mën a ñàkk dong la ak amam nekkut lu mënta ñàkk jaayis dong la moom ak amam moom mbindeef ak amul mbindeef ak ñàkkul mbindeef bu ñemoo képp gannaaw ba lenn ci mbindeef wëlbati ko sos seen bopp day mel ne kon amul mbindeef gi jekk na jekki ëpp doole ñàkk ko mbindeef ga ci lu dul benn sabab boo xam ne moo ca wàll si boo nee nag ñoo yemoo képp waaye nag yàlla ak coobareem moo ñëw amal lee ñàkkal lee nag waaw koy xel daal di koy gaaw a nangu day door a layal ne mbindeef yi dañoo sosu mu ne li ngay xamal ne mbindeef daa sosu moom mooy mooy mbindeef foo ko fekk day takkoo xarab xarab mooy loo xam ne defut jëmm ju ne lëng aw melo la yoo xam ne day fekk jëmm rekk mu takk ca mel ne yëngu toog dal xiif ak mar sonn ak noppalu gudd ak gàtt rafet ak ñaaw yu bare bare rekk yàlla xam nañu toll loolu moo tudd xarab yooyu moom xam nañ ne dañoo sosu am nañ fuñ tàmbalee te gis nag mbindeef yi mënuñoo tàggoog xarab yooyu le ndegam nag xarab day lu sosu kon loo xam ne doo tàggoog moom dangaa sosu rek boo sosuwutoon doo tàggoog loolu nga xam ne wóor nañ ne am na fu mu dalee am na fu mu dooree dafa sosu kon mbindeef dafa sosu te it sosul boppam yàlla nag moo sos mbindeef maanaam daal boo nee am na kenn koo xam ne moo amal lépp te kenn amalu ko rek mu daal di gàtt waaye fi mu toll nii boo waxee ba ne yàlla kat moo sos mbindeef yi waaye moom it am na ku ko sos day mel ne kon moom du yàlla kookee ko sos mooy yàlla waaye kon war ngaa jàll ne kookee itam kat am na ku ko sos kooke it xel day nangu nga ni jàll ne keneen sos na ko bu yooyu diwee amul fu mu yem loolu nag moom la xel nanguwut li xel nangu daal mooy nga jàpp ne am na kenn koo xam ne moo amal lépp te kenn amalu ko te ñenn ñu ne am na duñ koy tuddee ci aw tur bu dee ci arab ñu koy wax allah bu dee ci wolof ñu koy wax yàlla bu dee ci yeneen làng itam am na nuñ koy tuddee mu ñëw nag ci lay yi mooy melawu waxoon ne dafa sax ci wàllu yàlla mu dal koy layal ba mu dëgër dafa layal al wujoodu amul yàlla mu jàll si ci ab xidam te mooy yàlla dalewul fenn ji nga waxoon mu ne yàlla day bu fekkee da nga ne am na fu mu dale kon da nga daal di wax ne dafa sosu mooy faaw lu sosu lay doon ni mbindeef yi su boobaa nag li ñuy wax dawru ak tasalsul daldi am dawru mooy jëmm ji am na ko mu sos waaye moom it am na ko ko sos tasalsul nag mooy loolu di wéy di wéy rek bañ am fu mu yem mooy boo nee yàlla day am na fu mu dale kon nee nga dafa sosu ni nun te ñàkkul ku ko sos moom nag kon nee nga moonu sos waaye moom it am na ku ko sos kon dawru mooy loolu jëmm ju nekk faayil nekk mafool boo ne yàlla moonu sos waaye am na ku ko sos faaw saye boo jàll ne kookee sos yàlla it am na ku ko sos kooka it nga jàllaat ni moom it am na ku ko sos kooka it bu taxaw saye boo jàllaat ne moom it am na ku ko sos bu ko defee nag muy tegaloo rek di yooyu loolu moo tudd tasalsul loolu nag xel nanguwu ko li xel gën a gaaw nangu daal moom mooy am kenn koo xam ne moo amal lépp te moom nag kenn amalu ko da nga ne woon yàlla du jeex mukk mu ne la boo ne woon nag yàlla mën naa dem ba yàgg mu jeex kon la nga waxan ne dalewul fenn rek moo deñ kon dangaa bëggoon ne kon yàlla dale woon na fenn ndax li nga saxal léegi ne yàlla dalewul fenn bu fekkee moo wér moom tudde mukk ba yàgg mu jeex te layal nga léegi ne moom dalewul fenn kon nag di jeex mukk rek da nga ne woon bokk na ci melooy yàlla moo sàkk lépp waaye yéema wucceeg lenn nuro wucceeg lenn mu ne nag bu fekkoon ne yàlla dafa yemal mbindeef kon mbindeef moom daa sosu da ngay wax ne kon yàlla it kon dafa sosu mooy am na fu mu dooree te léegi nga layaloon bu wér a wér ne moom dalewul fenn da nga ne woon yàlla dafa doylu ci boppam sëkk ajuwul kenn ba lenn su fekkee nag da nga ne loolu dañ na te daal di mel ne comme mbindeef yi ajowoo jëm ci kenn mbaa lenn te su boobaa li muy tekki rek mooy mbindeef la li mbindeef yi te layal nga léegi ne moom dalewul fenn di yem fenn du mbindeef da nga ne woon yàlla kenn dong la te su ko wàññi naa ñaar ak ñett dafa wéet ci jëmm wéet ci jëf wéet ci melo loolu nag moom dong mën a am bu fekkee da nga ne woon yàlla limu na kon du mën a sàkk dara te kon dara du am ndax li nga wax ne moom la yàlla mel ñaaram buñ tase woon lépp yàqu lim ne law kaana fihima alihatun illa allahu la fasadata yu ëpp benn yàlla bu amoon lépp yàqu looloo ci am ndax seetlu nga ne soo nattale woon tey ñu ne yaari jëmm yi ku ne yàlla la duñ mën di bokk ak bëgg bokk di bokk ak bañ léegi nag bu kii bëggee lii ni ki amal lii kee bañ loola ni ki ñàkkal loolee moom la bëgg kii ne lii day am kii ne lii du am te mu yaari sabaan yoo xam ne moom mënuñoo bokk tase benn rek mu am mbaa mu ñàkk kon dañuy seet ñoom ñaar koo ci xam ne coobareem moo am rek ñu xam ne koo koy yàlla te ñu des du yàlla li wóor daal mooy yàlla moom mënta limu seetlu nga ne benn dëkk sax bu amoon ñaari président wala benn res yoo am ñaari gouverneur rek lépp daal di yàqu da nga ne woon yàlla amee na dund ga yell ca moom amee xam gu mat sëkk gu manquéwul dara amee coobareem joo xam ne ci lay jëfe dara du ko rëcc rek am mbaa tombe amee kàttan nga nga xam ne dara tawu ko lu mu deful rek da ko narut waaye amul lu mu tële nee na yii su ko melowutoon kon doo gis benn mbindeef ndax am na melo yi mooy tax a mën a sàkk mbindeef te moo ko tax a sàkk mbindeef yi bu fekkoon ne nag bu fekkoon ne amewutoon melo yi kon du mën a sàkk menn mbindeef te doo gis menn mbindeef te gis nga mbindeef yi ni ñu bare sart ak jawaab fii ñoo fi yemoo waaye day wane ne bu ne la law lam yakul xidamu wasfahu lazim mooy yàlla su fekkoon ne melowut ak jiitu kon mu daal di sosu tont loolu mooy kon mu daal di sosu jooju la ne ak neen rek la ba tey lee mu ne fekkoon yàlla mën naa dem ba yàgg mu jeex lam tafal xidam tontu loolu mooy yàlla am fu mu dalee mën daa am lam ca teg ne bu yemoon mbindeef kon daal di nekk ku sosu ndax mbindeef daa sosu tontu loolu mooy kon mu nekk ku sosu ne mbindeef moom it neen rek la caaxaan la dañ ko wax rek ngir jàngale nga topp nag law yépp te ñu juróom benn mu ne kon sart sa mooy donte nangam mbaa donte du nangam je loolu mooy sart sa ak la ko tontu yépp ñoo yemoo lu ca nekk du dara lu may waxinu jàngale rek yetti meloo yi muy déggam nga yell ca moom ak gisam ba yell ca moom ak wax nga yell ca moom te leen di tuddee sifaatul kamaal meloy mat ndax bu leen yàlla melowoo wutoon kon day melowoo seeni safaan ndax ku amatul dégg daal di amee tëx ku amul ab gis daal di amee ngumba ku amul ak mën a wax daal di amee ak muuru nee na dañoo waxoon ne mbindeef moom jaayis la maanaam lu mën a am la lu mën a ñàkk la yàlla ñëw nag ci coobareem amal lay ñàkkal lee mu ne loolu nag mënu su ko dindi ndax su fekkee da nga ne woon mbindeef dafa jomb ñu ne la ah lu jomb kat mooy lu mënta am te gis nga mbindeef yu bare bari ñu am ni ki nun ñii toog boo ne itam mbindeef kat amam gi mënta ñàkk ñu ne la ah loolu kat boo gis rek li am tax nga ne mbindeef mënta ñàkk ndax mumkin buñ ko waxee rek mooy lépp loo xam ne xel nangu na ak mën a amam te nag bari na yu bare bari yoo xam ne xel nangu woon na séenu mën a am te faruñu am kon nag coobare yàlla moo tax yooyee amut amuñu kon mi def da nga wax ne rek jaayis la lu ca soob yàlla mu amal lu ko ca soob mu ñàkkal waaye bul bëgg a wax ne mbindeef dafa nekk lu jomb mbaa nga naa dafa nekk waajib mëntoon a ñàkk